Assalamu alaikum. Merci, jeune frère Merci à l'assistance. Euh, il me sera très difficile de m'exprimer sur Sidi quand je vois euh, grand Tidiane, grand Osenou, euh, Madame Faye, Oustas Hassan dañu bokkoon je le disais la dernière fois à à Cheikh fajri kenn waru ko uniquement groupe de presse l'histoire du groupe Wolf a jamais képp ku nekk dans le Landerno, muy politique muy média di nga fàttaliku di nga bàyyi xel nit la retenir en tant que jeune entrepreneur mooy li mu inculqué parce que nit la woon koo xam dafa doon ku sa talent nga exprimer ko et Loulou, je me rappelle bi me suis Saint-Louis le c'était avec Souleymane Il a intégré ma rédaction deux jours après je le rencontre dans son bureau Je wax ak nous ñu échanger mu me ma jox ma ay orientation jox ma ay conseil wax ma fi ma war a jaar ma exécuté ko topp ci un mois après il me rappelle ma ñëw ci biir bureau mu ne ma li ma la waxoon ne dinaa la ko fay salaire dinaa la ci yokkalaat beneen cinquante mille parce que gis naa ne yaa ngi góorgóorlu c'est encourageant et c'est important c'est important parce que relativement c'est une équipe très jeune et à l'image de mon jeune frère cher, 35 ans et vous avez aujourd'hui l'un des groupes les plus puissants au Sénégal Yen bu Disle, Yen Boudisle, mais je suis certain comme le Malawar, vous avez les épaules assez larges pour contenir tout ça, mais surtout, vous avez une excellente équipe autour de vous, des gens qui comprennent les enjeux de l'heure et qui sont prêts à défendre notre cher Sénégal. La position de Walfadri ou les positions défendues par Walfadri, parce que bon, mind spirit bu sidi xam ne ak taxawayam moy Sénégal moko ko lepp lu mu am et il s'est toujours battu pour ça et ci lolu lañu tagat ñun ñëpp ñi nga xam jaar nañu fi muy nit ko xam ku bëgg waw goor la mais surtout ku bëgg nit ku am fulla ak fayda ci limuy def et je me rappelle ci suñuy situation yi ndon dund fi ci biir kër gi ku ci nekk ak étiquette ba mu la joxoon maa ngi fàttaliku am na benn euh, taxawaay boo xam ne amoon na fi muy nettali ku nekk naan diw mi américain la diw mi moom day masla diw mii muy mu yegg si ba ci man man moom xool ko moom c'est un c'est un américain moom moom du taxaw il est tout le temps dans les starting blocks kon il faut ñu comprendre esprit bi sous-tendre kër gi mu di Walfadjri tey jii la presse sénégalaise dans son ensemble groupe de presse boo ci dem mën na maa wax ne ossature bi fii la jóge donc, WALF, ce n'est pas tout simplement un groupe de presse. WALF, c'est une histoire. WALF, c'est une école qui nous may ba ñu yegg si ci loolu yàlla na ko yàlla dolli leer yàlla y a le dëgëral ba li ngeen bëgg ci bug qui bi mu Tahawai suñu borom may leen kàttan ngeen mën ko teewe suñu borom may leen kàttan ngeen mën ko yeggale en tout cas mangi ngi leen di encourager et di leen wax je suis toujours à côté. Et Inch'Allah nous allons mener tous ces combats ensemble. Wolf, suñu walf Walf, Sénégal Wolf, Walf, Afrique Sidi Lamine nous